asalaamualeykum mbokki Sénégal ginnaaw bi ñu waxtaanee démb ci sama yéene ngir dooleelaat jàmm diisoo ak citoyenneté ci suñu biir tey damay ñëw ci ponk bu am solo ci sama programme muy kaaraange ndax nag balaa nga naan naam ne fa ngir sàmm kaaraange askan wi ba mu mat sëkk booleeg aar suñu réew bu ma Sénégalais yi dénkee seen kóolute ci diir bu gàtt dinaa indi ay coppite yu yaatu ngir doomi réew mi fu mu toll nekk ci jàmm doxal ay liberté te kenn du ko tënk waaye loolu li ci jiitu mooy tàggat askan wi ci lu ñuy tuddee esprit de défense et de sécurité muy maanaam sénégalais bu nekk def ci xelam ni wattu suñu kaaraange warigaru bépp citoyen la réew yu bari bu ñu amee doole ci wàllub sécurité loolu moo ko waral. loolu nag fas naa ci yéene tàggat sénégalais yépp ci école yi ci rajo yi ci télé yi ci internet bi ba ku nekk xàmmee fitna ak balaa yi mën a dal ci kaw askan wi développer ay réflexes sécuritaire fagaru ba fuñ ko soxlaa mu taxaw temm jàppale suñuy force de défense et de sécurité ba ñu mën a matal suñu kaaraange. su ngeen ma falee dinaa delloowaat kóolute diggante population yi ak suñuy FDS dooleel sécurité de proximité. jekkalaat secteur de compétence su police ak gendarmerie yokk taxawaayu sapeur pompier di ñu def ba fu sénégalais jaaxle ci fukki minute ñu mun ko wàllu gën a rafetal dalal bi ak toppatoo citoyens yi ci brigades yi ak commissariat yi tax dinañu doubler limu agent yi yokk seen jumtukaay ak seen formation dinañu dugal bu baax technologie yu bees ci kaaraange suñuy quartier ngir gën a mën a jàmmarloo ak bépp xeetu criminalité menace terroriste wala cybercriminalité ngir xeex accident yi dina taxawal genn kuréel dugal ci ay policiers ki gendarme yu doy jox leen jumtukaay yu mat pour sàmm kaaraange ci yoon wi dinañu yokk taxawaayu FDS yi ci frontières yi ak ci àll bi muy duwaan polis wala eaux et forêt dinañu mottali groupe d'action rapide yu gendarmerie yi taxawal ay quick reaction forces pour armée nationale bi damay daaneel di delloo njukkal suñuy FDS ak seen njaboot yàlla na yàlla delloo si dal ci Sénégal su ma faloo dinaa taxaw bu baax ci ñoŋal seeni condition liggéey ak dundu ndax nag ki aar danga ko war a aar jox ko respect ak dignité bu ma faloo dina bind livre blanc ngir sukkali suñu défense adopté loi d'orientation pour organiser waat kaaraange ci biir réew mi le temps de la relève est définitivement arrivé jërë ngeen jëf